aousubillahi min aseytaani rajim bismillahi rahmaani rahim inna ibadi laysa laka alayhim sultaan wala wu yaxsimuka min annaas ya allah barke borom Tuubaa eh, asalaamualeykum wa rahmatullah eh, gannaaw bi nu jiitalee ci siyaar bi Cheikh Mouhamadul Muntaxa yàlla na fi yàgg tànd ak wér eh, di siyaare sunu sunu jëwriñ sëriñ Afi bu Sall imam mi nga xam ne mooy jëwriñu daayira Muxaddamaatul Xidma tey jii nag buñ gisee sunu jataay bii ñoo ngi fii ci biir jumaay Tuubaa ji euh, ñu toog ak suñu kilifa yi nga xam ne ñooy kilifa yi nga xam ne ñooy yor liggéeyu Seexul Xadim bi fii ci jumaa ji sëriñ Abdoul Ahad Mokhtar mi ngi nii toog di secrétaire général yi nga xam ne ñooy moo yor kàddu sëriñ Afi Bousso al imam euh, ak sëriñ Abdoul Ahad Bousso Mokhtar mi nga xam ne moo jiite commission culturelle bi nga xam ne bu jumaay Tuubaa euh, ak sëriñ Abdoul Ahad Bousso Euh, sëriñ Abdoul Ahad Bousso Thierno mi nga xam ne moo jiite commission culturelle bi nga xam ne euh, moo nekk fii ci jumaay Seexul Xadim ji euh, sëriñ Abdoul Ahad Bousso maam Asta mi nga xam ne moo jiite relation extérieure ak commission sociale moom itam mi ngi nii toog kenn ci ñi yëkkati kàddu tam di Assane Diop bokk ci ñi nga xam ne ñoo bokk ci ndaw yi nga xam ne daayira bi ñoo leen jox seen kàddu di leen yónni ñuy yëkkati ay kàddu yu jëm ci daayira bi jataay bii nag li ko waral buñ ko gisee mooy liggéey bu mag boo xam ne fédération daayira Cheikhul Khadim Touba France ñu liggéeyal ko Cheikhul Khadim ci jumaa ji euh, muy liggéey boo xam ne France moom damay wax ne ku tudd liggéey bi nga xam ne mooy bi daayira bi euh, saytu fii ci jumaa ji da nga tudd waa France ndax jëf yiñ fi jëf kenn ku ne gis na ko li jëm ci ay oto maanaam vidas ak li jëm ci margo bi ak ci machine entretien bi lépp yàlla dogal nag leneen dollikuwaat ci loo xam ne day liggéey bu mag boo xam ne borom liggéey bi mi ngi koy doog a sottal ndax bi ñu demee France tam kenn ku ne gis na koor gi weesu ak màggal gi weesu président fédération bu Touba France El Hadj Bamba Thiam mu taxaw ci taxaw bu mag ndax yëkkati woon ay kàddoom ci képp ku nekk ci fédération France nga jàpp ci liggéey bi jëm ci jumaa ji ci daayira Muxaddamaatul Xidma ci màggal gi ak ci koor gi euh, noonu tam lañuy tuddee secretaire général sëñ Xaadim mm, noonu lañ koy tuddee waaye nag li ci yokkaat mooy ginnaaw liggéey yooyu ay xalaat judduwaat ci ngër gën a yaatal liggéey bi ba taxawal association nationale Muxaddamaatul Xidma France ba yàlla dogal na tey jii jaar nañ fi ñu war a jaar ci préfecture ba récépissé bi jot nañ ci liggéey boobu nag lañ am ndigalal sëriñ Xaafi bu Sall imaam mu ne yëkkati ci ay kàddu ci teewaayu sëriñ Abdul Ahad Bousso Muxtaar ngir ndigal la loo xam ne biñ ci jotee ndigal sëriñ Xaafi nag ne nañ ko gën a yaatal wax ko àdduna bépp rawatina ku nekk France te bëgg sa addiya wala li nga bëgg a jàppe ci liggéey bi nga xam ne mooy liggéey bi nga xam ne ñoom ñooy taxaw jumaa ji nga mën faa jaarale sa addiya yàlla dogal na nag récépissé bi jot nañ ci Euh, jot nañ ko ubbi nañ compte banque boo xam ne tam compte la boo xam ne buy tasaaroo ci àdduna bi la fu waay nekk te am am yéene sa jëf dem ci liggéey Cheikhul Khadim bi ci jumaa ji soo ko ci jaaralee rek des na ci jot euh, lenn ci jëwriñ yi nga xam ne tam ñoo doon taxawu liggéey bi euh, buñ ci tuddee am Amdi Moustapha Mbacke kenn ku ne xam na ne kenn la ci keno yi daayira bi bokk ci commission culturelle bi kooku mooy ki nekk ci boppu fédération boppu euh, association nationale Moukhaddamatoul ma France nga xam mooy jëwriñ ji di président association bi muy Serigne Amdi Moustapha Mbacke euh, bu ñu waxee secrétaire général bi tam Serigne Mbacke Dieng euh, ak Serigne Cheikh Niang moom Serigne Cheikh Niang nekk Toulouse Serigne Mbacke Dieng nekk fële ci Paris Paris nag buñ ñu ko tuddee faaw ñu tudd sëñ Mour Fall Kébé sëñ Mor sëñ sëñ Modou Fall Kébé di jëwriñ maam Cheikh Rahima Fall ja fa nekk di jëwriñu seexul Khadim ja ne ca daayira ba euh, dan duñ fàtte tam sëñ Issa Issa Fall ànd koog sëñ Modou Kara Samb mi nga xam mooy jëwriñu liggéey bi léegi lañ déggante mu ne ma moom comme yàlla dogal na yéen a ngi rek yàgg si iblaat mën ngeen na foo witu euh, noonu tam la ñuy tuddee sëñ Pam Ndaw mi nga xam ne mooy mi nga xam ne mooy trésorier bi nga xam ne mooy trésorier association nationale Muxaddamaat ma France nekk ca Touba Toulouse ànd ko euh, sëriñ Baye Adama Lo ñooñu ñooy ñi nga xam ne ñooy bureau bi nga xam ne ñooy saytu liggéey bi waaye day mel ne nag liggéey la boo xam ne moom képp kuy ab taalibe Cheikhul Khadim di jullit rek wala ngay def katu lu baax rek liggéey boobu moom woo nañ la ci ndax liggéey Cheikhul Khadim la fi ñu koy liggéeyal mooy fi ñu fi mu ne képp ku ci feeñ da nga feeñ te ku ci réer dootoo feeñ waaye France mu mën nañoo seede ne feeñ nañ ci. ndax euh, jëf yu bari jóge na fa ñëw euh, buñ tuddee Toulouse nag faaw ñu tudd ña nga xam ne ñoo fa nekk tam buñ ci tuddee jëwriñu Cheikhul Khadim ja fa nekk muy Serigne Mame Mbenda Ndiaye di président Cheikhouna Ahmadul Khadim ba fa nekk nga xam ne ñoom sax duñ ci sore waaye kenn ku ne xam ne am nañ xaas ndax euh, li bokkoon ci li daayira bi yitte woon muy ndoxu ndoxu ndox fii ci Baqiya ñoom ñoom taw tawféexu jaayante ko Cheikhul Khadim ba am ci ndigal Cheikh Mamadul Muntaqa sëriñ Afi Bousso joxe ci ndigal ba tey ji forage boobu liggéey bi mu ngi sore kon xam naa ñu bañ a guddal rek eh, ndax am na tamit eh, numéro compte banque bi moom leen moom ngeen gis noonu muy daw ci ecran bi eh, numéro yi nga xam tam téléphone contact la ñetti téléphone ngi ci muy sëriñ Amdou Moustapha Mbacké mi nga xam ne mooy jëwriñu association nationale Muxaddamatul Xidma France numéro téléphone am moo nekk noonu ak numéro Serigne Mbacke jang bi nga xam mi ngi nekk pari ak numéro sëñ Pam Ndaw mi nga xam ne mooy trésorier général association nationale Moukhaddamatoul Khidma kon nag liggéey baa ngi noonu woo nañ ci képp koo xam ne yaa ngi France woo nañ ci képp koo xam ne def ko te lu baax nga wala ngay liggéeyal lislaam liggéey baa ngi noonu yal nañ ci dajeeg barki waqi daa waaye jële sii na daamoo fi xidmati wa ablahum maaraamoo inna li seen asaaraam li xidmati fa lahumu diyaara wasal jannati seen bokkum taalibi asan Diop xidma Assane Maam Jaara aouzu billahi min asaytaan rajim bismillahi rahmaani wa rahmatullahi wa uh, mbokk yi ñu seetaan ñu ngi leen di nuyu di leen siyaara di leen ndokkeel di jiital ci nuyoo bi Cheikh Mouhamadul Muntaxa di ko ñaanal sunu borom mu yàggal ko fi te wéral ko di leen nuyu tamit ci turu muxaddamatul xidma ci njiitul sëriñ Afiya Buso eh, ak kilifa yi nga xam ne ñoom lañ teewal eh, te sëriñ Assane bi mu jël kàddu léegi mu tudd leen tudd seeni tur kenn ku ne it fonction bi nga xam ne yor nga su ngeen gisee jataay bii nag dafay jëm rek ci liggéeyu muxaddamatul xidma ni ko sëriñ Assane junjee léegi ci tàmbali bi eh, ci diaspora bi mm, ñu gën a concerné nag waa France muy taalibe Sëriñ Tuubaa yi nekk France rawatina fédération euh, Sëriñ Tuubaa bi fa nekk ci njiital Sëriñ Bamba Thiam muy liggéey bu am solo boo xam ne yàgg nañ ko liggéey di ko ànd ak daayira Muxaddamatul Xidma bi nekk ci jumaa ji euh, Sëriñ Asan junj na ko léegi depuis 2012 ba léegi liggéeyu Muxaddamatul Xidma ak ci jumaa ji ak liggéey yi ñu sëriñ bi di sant ñu ngi koy ànd ak sunu bokki taalibe yi nekk France ci taxawaay yi ñoom sëñ Modou Kara ñoom ñooñu ak sëñ Xaadim ak sëñ Modou Mamoun ñoom te loolu lépp bu koy def tamit ci njiitul jëwrin yi lañ koy defee ci njiitul daayira yi nekk foofu la ci lay aju euh, waral nañ moo tax euh, niñ ko junjee leegi indi nañ fi ay liggéey yu yaatu muy ñaari oto yoo xam ne yu ñuy dawal la ñuy daa ñuy nettoyé jumaa ji margo bii ngeen gis indi nañ fi yokkoon nañ ko ba boo xam ne 15 3 la indi fi benn camion vidange boo xam ne ba léegi mi ngi nekk di liggéeyal daayira bi ci yi nga xam ne fii lañ koy soxla ni ki doon tamit koor ak waajtaay màggal saa su ñëwee danañu indi ay addiya euh, dëkkul ba léegi léegi nag liggéey bi comme ni ñu koy def ni jamono di gën a jëmee kanam ak ni muy gën a doxee ak technologie bi ni muy avancé xam ngeen ne fu mel ne Amérique ak Espagne ñoom am nañ ay association yoo xam ne fu mel ne Amérique fondation lañ am boo xam ne. Euh, gis ngeen ni muy doxee Espagne noonu ci jiital suñu asan mi moo jiite association nationale Moukhaddamatoul Khidma bu Espagne. loolu nag taxoon na France ak nit ñi ni ñàkk jot ñu xam ne ngir suñu bokki taalibe yi bëgg a participer léegi dem ci daayira yi di laaj ay addiye ak yu demee noonu mën naa am niñ koy bëggee du du ni demee léegi sagam nit ku nekk man naa yor téléphone am fu mu bëgg joxe addiye mu joxe ko. te xam ngeen ne at yi e, e, taxawaloon nañ lu mel noonu waaye ci tuuru nit la doon la doon nekk wala ci compte doomu aadama te loolu réew mi doxewul noonu léegi nag am nañ seen loi maye nañu taxawal ay association yoo xam ne day am compte banque am ndax léegi kon Muxaddamatul Xidma léegi am na fa association boo xam ne association nationale mu Muxaddam association culturelle Muxaddamatul Xidma pour Touba France euh, Serigne Amdi Mbacké jiite ko Serigne Cheikh Niang di secrétaire général bi sëñ Mbacke Dieng sëñ Pam Ndaw di trésorier général bi euh, loolu nag mu doon loo xam ne dañ koy def tamit ci ronu kilifa yi nga xam ne ñoo yor liggéeyub Serigne Touba boobu ci France ci muy sëñ Bamba Thiam ak mboolem président daayira yi nekk France yëpp nga xam ne léegi nit ki e, dana man su bëggee participer ci liggéeyu jumaa ji moo xam koor gi la moo xam waajtaayu màggal moo xam euh, entretien jumaa ji Euh, danañu lancer numéro compte bi lancer it numéro yi jëwriñ yooyu nga xam ne tey moo xam crédit carte nga yor wala Paypal wala loo mën a kii da nga mën a participer ci sa téléphone sa addiyee ñëw ci jumaa ji loolu nag mooy moom lañ gën a jublu ci faciliter mbir yi kon su ko defee ñi ngi koy lancé ci képp koo xam ne doon nga dégg liggéeyu Moukhaddamatoul Khidma ak liggéeyu daayira bi wala koor gi ñu jub te nga bëgg cee participer incha allah danañu yaatal numéro compte bi yaatal tamit fi ñu jaar ngir participer dañ ci defar yeneen communication yoo xam ne moo koy gën a yaatal ci groupe bi daayira yi ak ci ci groupe bi association yi nga xam ne moo nekk France yëpp. loolu nag di liggéey boo xam ne liñ ci jublu rek mooy yiw wi nga xam ne xam nañ ne mi ngi ci ñu ñu séddoo ko ak ñëpp démb rek maa ngi waxtaan ak suñu affaire mu wax ma lu am solo loo xam ne sëñ Mountakha daf koo wax daf ne ko wax ma ne ma taalibeeb sëñ Tuubaa nga may nakk-nakal mu ne ma wax ma tamit ne ma ci muxaddimatul xidma nga bokk ma ne ko ci may mu ne ma waxal loolu ma ne ko ci muxaddimatul xidma nga bokk mu ne ma alhamdulilahi rabbil alamin te moo fi nekkal Serigne Touba kon dafay mel ne kon taw feex la ju réeréy joo xam ne ñun suñu borom defal nañu ko ci ndimbalul sëriñ bi ñu bokk ci liggéey bu rëy bii nga xam ne ñoo koy yoral barabam bii nga xam ne fu mu mas a nekk ci àddina euh, da koy tudd bokk ci barab yi nga xam ne amaakinu muqaddasaat yi ñu tànn ci ci ci kaw suuf la kon su fekkee ne ñoo yor loolu di saytu warma ji di saytu entretien bi di taxawu nit ñi ci seen diine ni ko sëriñ bi bëggee woon ak ni mu ko mébite woon loolu it sant yàlla la kon loolu ñu ngi tàllal loxo ci ni ko waa France baaxoo defee ci yi weesu ni ma ko waxee léegi liggéey yi weesu jàpp naa ne lii lu ubbi bunt la beneen bunt la boo xam ne dana yombal liggéey bi ba koor gi di ñëw danañ gis liggéey bu kawe njort biñ daa def ak ci yeneen yi kon ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di ñaan sëriñ bi nangul ñu liggéey bi nangul ñu liggéey bi defal ñu tawféex ak taysiir asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu euh, ausbillahi mina seytaani rajim bisimillahi ma rahim ina ibaadi laysa lak alayhim sultaan wala wu yaxsimaka mina naas ya allah barke borom tubaa euh, gannaaw kàddu yooyu nga xam ne moo bàyyi ko ci cerno yëkkati na ko euh, ci ndigalal sëriñ bi Euh, ci liggéey bi nga xam ne moom lañ doon leeral rek euh, mu jëm ci euh, maanaam association nationale Moukhaddamatoul ma France bi nga xam ne yàlla dogal na ci baaxub sëriñ bi jot nañ ci récépissé bi ubbi compte bi gannaaw sunu sang su baax si nga xam ñoo jiitu te seen i kàddu jiitu ci maanaam wax ci ndigalal sëriñ bi ngir liggéey bi muy compte bi ak association bi ñu yaatal ko ba képp ku nekk France wala fu waay ne ci bitim réew te euh, bëgg say jëf di ñëw ci daayira Muxaddamatul ma soo ko ci jaar dañu jot ci ñu togg kenn nag ci jëwriñu seexul xadim yi muy sëriñ Modou Fall Kébé euh, muy koo xam ne maanaam euh, ñu bari xam nañ ko nga xam ne fii ñu toll ci jamono bii mooy jëwriñu seexul xadim ji nga xam moo nekk Paris waxoon naa ko ci samay kàddu bi moo ko njëkkee yëkkati maa ngi tudd sëñ Modou Fall Kébé buy tudd sëñ Issa Fall euh, Elaas Bamba am sëñ Xaadim sëñ Modou Kara di tudd ñëpp ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk France te daan yëngu ci liggéey bi euh, sëñ Modou nag moom muy koo xam ne euh, taxawaayam ñun ñëpp xam xam nañ ko muy jëwriñu maam Cheikh Ibrahima Fall itam foofee ci Touba Paris kon sëñ moodu kàddu yooyu rek lañ doon wax yàlla dogal na yéen seen xalaat bokk na ci xalaat yi njëkkoon a jóg ci nu ñuy fexe ba organiser liggéey bi ni ñuy fexe ba amal ko ay ay kayit ni ñuy fexe ba am compte banque boo xam ne yëf yi danañ ko organiser ba fu waay mën a nekkati ci àdduna rek say jëf di mën a ñëw ci jumaa ji yàlla dogal na nag loolu yëpp yéwén na tey lépp seen xalaat ak seen seen yitte ci jàpp ci liggéey seexul Khadim bi waaw kon ñu jox la kàddu gi nu xam ne tam fii nuy nekk waxoon nañ ko démb ci waxoon nañ ko ci suñuy suñuy kàddu tawféex ji sëriñ bi defalati waa France ndax France kenn ku ne gis na euh, bu yàggul rek dem nañ Cheikh Maodo Mountakha euh, di ko di ko di di wax ne am nañ taw feexu jël si ci moom digal ngir maanaam université internationale bu seexul Khadim boo xam dañ ko war a def foofu ci Paris loolu suñ Modou Fall Kébé mi bokkoon na ci ñi nag ak jëwriñ ñi àndoon ci Cheikhul Khadim ba tey euh, taw feex ji nga xam ne itam France amaat na ko waxoon naa ko ci lii jiitu muy oto ya fa njëkk a jiitu muy si oto vidas yi ak euh, luy euh, yeesalaat margo bi rawatina nag fii ñu toll nga xam ne lu ñu gën a soxla da cee bokkoon muy manque teg ndox mi nga xam mi ngi doon am fii ci Baxiya tey jii waa Touba Toulouse daari daayira Masaalikul Jinaan sëñ Touba xaasala leen ko ba tey jii fii ñuy wax nii ñoom itam mm, loolu liggéey bi mm, tàmbali na ndax matériel bi tàmbali na ñëw loolu tamit euh, ci biir yaatal gi tam danañ ci wax sax occasion képp koo xam ne bëgg naa jàpp ci liggéey boobu nga xam ne moo jëm ci forage boobu ñu war a def Baxiya compte banque bi ñu ubbi tam maanaam loo ci jaaral tam ñu ñu ñu man cee jot ndax compte bi moom moom daayira bi la la taxawal liggéey bi jëm ci jaay daayira bi la taxawal ko ñu jébal kàddu gi rek sëñ Modou Fall Kébé moo am kàddu yum ci indi ci wàllu soññee ci liggéey bi. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokki jullit taalibe yi ñu ngi dellu di leen siyaare bu wér di ñaan itam suñu boroom mi nga xamante ni bi na mooy kàttanal itam mu kàttanal ñu bu baax a baax a baax ñaan gi nag itam ñu ci jiital rek ki nga xamante ni bi na mooy suñu kilifa gu mag gi di sëriñ Muntaxa Mbàkke sëriñ Muntaxa Basiru ñaan rek suñu borom yàggal ko fii may ko ak wér itam ba naal yi nga xamante ne yëpp naal na ko mu àgg ba mu sumbaat yeneen i naal yu bëree bëri bëri te ñu ànd kook moom ñuy ziare itam nag suñu maanaam njiit ci liggéey bi ki nga xamante ne bii mooy sëriñ Amdi Moustapha Mbacke ak ki nga xamante ne bii mooy sëriñ sëriñ Mbacke moom itam ak ki nga xamante ne bii mooy Papa Ndaw ak euh, waa Toulouse bàyyiwuñu kenn rek waaye suñu ziar bu ñu ko tegee ci seen loxo rek ñu jàllale ko ci mboolem yëpp. waaye tam di ziar itam suñu jëwriñ bi nga xamante ne bii moom lañu àndal muy sëñ Assane euh, Diop mi nga xamante ne bii liggéey bi wax dëgg yàlla kenn ku nekk ci ñun rek. Euh, war nañ ko cee sant bu baax a baax baax a baax ndax liggéey la boo xamante ne bi na liggéey yëpp am solo waaye liggéey bii nag dafa nekk maanaam beneen mbir ndax liggéey boo xamante ni dafa jëm ci jumaa ji ak lépp loo xam ne rek farata ci ci ci dëkk bi wax dëgg yàlla kon dañ ko ci sant bu baax a baax a baax a baax a baax te liggéey bi xaj na ñoom ñooñu ci jiitu ndax ñoom ñoo ñu ci woo waaye fiñ toll nii ah ñu ngi ciy jëm a foraatu ngir jëm a xam dëgg-dëgg. ni muy doxee te loolu itam xaj na jafewul suñu toppee rek ci seen ginnaaw ndax kenn ku nekk xam na ni ku bëgg a liggéeyal sëriñ bi moom ci ak cell rek nga ko mën a maanaam doxale ba mën a ànd ak sëriñ bi kon ñoom suñ ci nekkee ren ba déwén ak ay déwén yu bari loolu mooy firnde ni maanaam li ñu nekk lu tegu ci yoon la ñu leen di ñaanal rek kon ci barki sëriñ tubaa mu gën leen ak kàttanal bu baax ñu mën a ànd ak ñoom itam ci liggéey bi waaw mu mel ni nag xam naa liggéey bi xaj na yaatu na waaye lu demee ni koor gi nga xamante ni bi ne mi ngi jub si euh, ñoom ñu doon ci dox daan ci def lu lu bari euh, ren ji nag ñu gën a am yéene nag gën ko yaatal te kenn ku nekk xam na ni maanaam weeru koor amul dara loo xamante ni bi ne yem na ak moom comme niñ koy waxee rek nit ki moom lépp lu mu def ci lu baax ci weeru koor bokkul ak maanaam ba jëm ci am ak maanaam dayo eh, ba bokkul ak budul ci weeru koor kon mu nekk loo xamante bi nag tey ji ñun ñëpp ñun ñoo ci war a góorgóorlu bu baax a baax te xam ne dañoo nekk ci dëkk boo xamante ni bi ne fi ñu toll nii eh, jafe-jafe ñi bari na te ñun ñi nga xamante ni bi ne waxatuma la ñi nekk ci dëkk bi sax waaye ñu nekk bitim réew. kon li nga xamante bi ne rek euh, moom lañ ci rek mooy ci euh, weeru koor rek muy loo xamante bi ne jara bàyyi xel la te xam ne ginnaaw am nañu ñun ay njiit yoo xamante ne bi wax dëgg yàlla mat nañu ay njiit kon nañu war a topp seen ginnaaw rek waaye itam li nga xamante ni bi ne moom la ñu mën a def itam mooy kenn ku nekk rek ci ñun rek foo mënti nekk rek tey ci àddina bi. moo xam France la moo xam fu mu mënti doon ci Europe wala ci àddina bi yëpp rek ñu xam ni maanaam liggéey bii nga xamante ni moom la suñu kilifa yii di def euh, te Serigne Amdi Moustapha nekk maanaam président bi njiit li ak ñoom Baye Assane mi liggéey la boo xamante ni bii na wax dëgg yàlla kuñ ci woo rek wax na ngaa santaat yàlla bu baax a baax te xam ne am nga xéewal suñu borom koo xamante ni bi nag gu mag la ñu bañ a yem rek ci ni xaj na am naa lu may doxal wala am na loo xamante bi na tey jii responsable laa ci wala ndàngam ak loolu ñaare seytaane daf ci gàllankooru ba gëm loola ni yow lii nga nekk maanaam tey jii leneen lu ñuy woote bu ca dem ndax yow lii nga nekk doy na la sëkk loolu nag bu ko nit ki gëmee rek mën na ko gàllankoor ci lu bëree bëri bari ñu xam ne maanaam liggéey Sëriñ Tuubaa yàlla kese la kon nag fu ñu la ci mënti woo rek wuyul te bañ a xeeb li nga xamante ni bi ne maanaam moom nga yor def ko ci waaye itam waruloo yem rek itam ci làmb sa poos rek def ci waaye war nga ko yaatal bu baax a baax a baax ci say maanaam say mbokk yaatal ko itam ci say xarit say yaatal ko itam bu baax nag ci sa njaboot ndax lu bëree bari comme ñun li ñu sëriñ moo daaminta daan wax rek mooy te yenn saa yi bu bu ñu masaan sas xam nga Baye Fall yi def ñuy sas man mii mas ma ko wax sax mën naa ko nettali ci bu gaaw rek xañ na temps bi xam na euh, mu am lu ñu sasoon ci ab liggéey ma indi ko jox ko ko mu xool ko ni ma ah, lii ndax yow rek yaa ko joxe ma ne ko waaw waaye boobu itam xaw ma lu taxoon mu mu mu mu wax ma loolu mu waxaat ma ni ma yow rek yaa ko joxe ma ne ko waaw mu ne ma nag a ah, du noonu li gën nag mu ne ah mu ne nit ki kat ab jullit maanaam foo mu bëgg a jëm ëllëg la mu jàpp ni lii bu ko defee yàlla suñu borom maanaam mu tasee yërmande suñu borom ba ba mën faa dem kon njabootam gi mu yor itam daf leen ci tàbbal nga xamante ni man mu ne ma buñ la sasatee dara seetal njaboot gi kenn ku ci nekk lu mu àttan nga def ko ci bu ko defee nag yow bu matul nga mottali ko bu fekkente ne beneen itam am nga lu ko ëpp itam nga def ko ci loolu moo tax kon ñuy fàttali rek njaboot gi ñu bañ leen a fàtte ndax dañoo toll ci jamono joo xamante bi na jamono ju xaw a doy waar la ndax kenn ku nekk xam na ni muy ni muy doxee eh, kon njaboot gi ñu bàyyi bàyyi leen ñu bàyyi ci xel bu baax a baax a baax di leen dugal ci yu demee nii ndax loolu mooy tax tey ñun ëllëg bu ñu fi jógee liggéey bi mën a wéy su dul loolu rek ñun bu ñu fi jógee lu bari day taxaw ndax liggéey Serigne tubaab yi bu ñu gisee tey jii mu agsi fii ak fii ko Serigne Mountakha agsil tey defe naa ñu bari xalaatu ñu woon ne maanaam tey jii lu bari mën na fe agsi te loolu nag tàggat gi nga xamante ne moom la Serigne Touba tàggatoon ci njabootam ak taalibe yi nga xam ne dañ koo toppoon ngir yàlla defe naa loolu moo tax maanaam liggéey bi maanaam agsi fii te xam nañ ni itam kanam lay jëm kon maanaam li may bëgg a wax rek ngir tëje ko mooy ñi nga xamante ni bi dañoo nekk ci ay dëkk muy ñun ñii ñu nekk ay France ak ñeneen kenn ku nekk ci sa wàllu bopp mën na nga ko fexe maanaam yaatal bu baax déggoo itam ak ñi nga xamante ni bi ne ñoom ñoo yor liggéey bi ba lépp loo xamante ni bi ne maanaam tey jii jox nañ la ko rek nga fexe seet nan lañ koy jotee ba indi ko ci liggéey bi te ñu góor góorgóorluwaat bu baax a baax ñu ngi jégalu nag bu baax a baax a baax ci lu ci dëng rek ndax ñàkk waaj maanaam euh, kàddu yi Euh, ñu ngi ciy jégalu bu baax a baax di sant nag bu baax a baax ñi nga xam ne te ne tam ñoo ñu dalal fii ci jumaa ji muy équipe technique bi ak maanaam suñu kilifa yi nga xamante ne bi ñoom lañ fi fekk ñëpp ak Baye Assane mi nga xamante ne bi ne moom ñu fi ñoo ñu fi indi ak suñu kilifa gi nga xamante ne mooy Serigne Amdi bi nga xam ne tuddoon nañ ko ak ñi mu àndal ñëpp ci liggéey bi kon jërë ngeen jëfati def sëñ Modou Fall ci kàddu yooyu nga xam ne indi na ko muy kàddu soññee euh, nga xam ne dafa jëm ci mboolem àdduna bi yëpp sax la yax jullit yëpp Euh, taalibey Cheikhul Khadim yëpp rawatina ci euh, ñi nekk France ak fu waay ne rek ci bitim réew kon loolu rek lañ leen doon indil ngir wane leen fii liggéey bi toll euh, muy maanaam association boobu nga xam ne mooy national muxaddamaat xidma France ak compte banque bi nga xam ne tam ubbi nañ ko ngir yaatal ko ci àdduna bi yëpp ba fépp fu waay mën a nekk ci bitim réew rawatina biir France loo ci jaarale rek daayira bi dana ci jot. Euh, sëñ Modou nag indi na koor gi muy sahru ramadan al karim euh, moom mooy liggéey bi nekk suñ kanam nga xam ne waxtu bu masaan ñëw dañuy ubbi benn compte LinkedIn boo xam ne moom la ñuy partagé lépp lu waay di barkeelu nga jaarale ko ca kon yàlla dogal na nag Moukhaddamatoul ma France am nañ compte kon képp koo xam ne yaa ngi ci France ak bitim réew ñu waajal koor gi lépp lu ci waay def rek incha allah des na ci jot euh, li aju ci liggéey bi itam di liggéeyu forage bi xam ñu ngi koy def baqiya ñëwoon nañ ci waaye fàttaliwaat nañ ko képp koo xam ne tam dégg nga liggéey bi te bëgg tam sa addiya sa barkeelu dem ci soo ko jaarlee ci compte boobu itam euh, des des na ci jot kon nag ñoo ngi ñaan ñu dajee ceeg barke waqi daawaay jëli si na daamoo fi xidmati wa ab lahum maaraamoo inna li si na saaraxoo li xidmati fa lahumu diyaara wasal janati jërë ngeen jëfati seen mbokkum taalib Assane Diop xidma Assane Maam Jaara